xalifa Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Mouhamad Nazir Ibrahim Niass al imaamul akbar imaam alxaaji Abdallah Ismail wa man lappa luppawun gannaaw bu sante yàlla subhanahu wa taala julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tatagal mbooloo mi yëpp di leen nuyu di leen ziyaara di si jiital sëriñ bi Cheikh Baye Mouhamad Nazir Ibrahim Niass ak mboolem mbooloo mu àndal di ay rakkam di njabootam bi yëpp ñu ngi leen di wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ñu ngi nuyu gan yu jógee si place yu fasanteeku yëpp di leen wax ne egsi ngeen ak jàmm macha allah di sargal ñëpp. di ñaanal yàlla ñëpp wax dëgg yàlla waxtu bi dafa dem lu sori te kilifa yi toog suñ gannaaw dañ xat lool kon duñ def lu dul ñu gàttal kàddu yi nga xamante ne moom lañ war a joxe fii su ko defee ndax nga xamante ne mooy waxtaan may bi gaaw a egg ci moom ñu def lu ñuy def ñu teel a jox gaay time ngir ñu mën a delluwaat incha allahu taala programme bi nak ku nek xamna na lu ñu fi dajale ñun ñep moy ziyara bo xamantene baxo nañ di ko defal almuqaddamul baraka suñ papa suñ al muqaddam Baye Cheikhou Diouf nga xamne dañ ko don def ci kanamam ba yàlla jele ko fi lol di continuer amna lu muy firne lu muy firne moy rek kana lillahi dam wa tasal kon li yàlla rek moko taxono jóg moo tax ci kanamam ak ci gannaawam yëpp macha allahu taala mu ngi rafet kon su ko defee ñu ngi nuyuwaat sëriñ bi ñu ngi ko ziyaarawaat du ko wàccewaat wàccuwaayam waaye du ko ñaanal yàlla lool yal na ko fi yàlla yàggal yal na ko yàlla wéral ku nekk na ko ñaanal loolu yal na ko fi yàlla na ko fi wéral su ko defee ku nekk xam na jotaayu lislaam nuñ koy baaxoo di ko ubbee. niñ koy ubbee rek mooy ay aaya ci alquranul karim bi ku ñu koy jàngal maaruuf ñëpp xam nañ ko ci alquran bu neex bi ñëpp xam nañ ko ci baat bu neex bi ñëpp xam nañ ko ci nu muy jàngee alquran di ko royee suñu waajur bu sell boobu di cheikh mouhamad nazir ibrahim Niass kooku mooy kan mooy cheikh aboubacar ibnu cheikh mouhamad nazir ibrahim ñas kooku moo ñuy jàngal alquranul karim bi inchaa allahu taala suñ paree ci moom dinañ jox suñ papa suñ sëriñ suñ ustaas al muqaddam al ustaas Baye Lamine Niass mu ubbil ñu jotaay bi ak ñaan yàlla suñ paree incha allahu taala nañ jël kàddu taalibe yépp kàddu xalifa bi teg ko ci loxo suñ Baye al muqaddam Baye Assane suñ paree benn kàddu moo siy des mooy welcome gan ak gërëm leen kooku nañ ko jox borom jotaay bi di al muqaddam Cheikh Aliou Ndiouf incha allahu bu buñ ci paree rek mubasharatan danañ jox nga xamante ne mooy alfadila al imaamul akbar su ko defee incha allahu taala moom mu dem ak ñun ci li nga xamante ne moo ñu fi tax a toog ñun ñëpp ñu dal di ah, teewal ndab yi incha allahu taala ñu dal di déglu xam-xam bi nga xamante ne moom rek lañuy xaar ci moom kon su ko defee ñu teewlu ñu jox sëriñ bi cheikh Aboubacar ibnu cheikh Mouhamad Nazir mu dal di ñu jàngal alquran ñu barkeeloo ko ngir ubbee ko programme bi insha allahu taala bismillahi rahmani rahim مثل نوره كمشكات في الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غرب ربيتي يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء نور على نور يهدي الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كأنها زجاجة كأنها من شجرة مباركة الزجاجة كأنها كوكب دري قدمي مباركة زيتون يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون wa salaamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah yàlla alamin alhamdulillahi rabbil alamin bokki julli ñu ngi nuyu ñëpp kenn ko turam ak santam nuyu jullit ak moroom jullit tam asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw bu ñu leen nuyoo ñu ngi siyaare ñëpp da jël siyaare yépp da ko teg ci suñu loxol sëriñ doomi suñu sëriñ doomi suñu sëriñ bay Mouhamadou Nasir ñass ak mboolem ay rakam ci kàddu Cheikh Barham Diouf ñass suñu khalifa ak rakam sayyidna ali Diouf buñ neyo ñoy ñep dafa melni neyo ñoy ñep ñëpp ñu ngi neyu hit suñu imam alhaj abdullah Ba ñu ko ñaanal yalla comme nako ko bay soxla ñaané bu ko no sant mu ko ba mu ne yalla ñu yalla fa ko imam yalla fa ba ci kanam kanam kam tax ak ñu ngi neyu mboolem kilifa yi fi teew kuñ tudd ak kuñ tudd buñ tuddee ñooñu rek dafa mel ne tudd na ñëpp Seydina Aliou ak mbagam suñu sëriñ suñu xalifa seex Barham Diouf ñas mu ne mu ngi gërëm taalibe bi yëpp ci góor ci jigéen ci mag ci ndaw ci dëkk ci gan ñu ngi gërëm ñëpp ñu bàyyi ko senegal ak ñu bàyyi ko beneen réew ak ñi ci biir Gambie ak mi ci biir Neema Nasir ak fu ñu mënta nekk ñu ngi leen di gërëm ñu leen sant. waaye taalibe bi itam ñu ne yow Seydina yi ñu ngi laa sant ñu laa gërëm da sant nga gërëm ñu dëkk teg sa loxo nga jottali ko suñu sëriñ suñu xalifa Cheikh Barham juuf ñas ak mboolem ay mbokkam ni ngeen gërëñoo ñu itam noonu lañ leen gërëmee waaye ngërëmal yooyu yëpp ñu ngi ñaan yàlla yàlla ci ak ngërëmal yàlla jiitu ndax mu xam njëriñ ñu ngi sant jokk julli yëpp ñu ngi sant ñëpp gërëm na ñëpp yàlla nañ ko teewee di nga déwén ci déwén gërëm ren liñ fi ñaan liñ fi jaamu yëpp yàlla nangu ñu tiful ko bala ko soob mu ñëwaat jullit yëpp ci barke bi yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmad Tidiane Sarif barke Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu barke mboolem jaamu yàlla gërëm barke allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim asalaamaaleykum wa rahmatullah ah xayrul kalaami maa qalla wa dalla kàddu yi gàtt na waaye jot na wax dëgg yàlla yow it ñu ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla yàggal ci kanam njaboot gi yàlla may la wér borom rajo bi ñu ngi lay ñaan nga xolal ñu sa machine bi su ko defee allah ñu ngi dem ci kàddu bi nga xamantene ne moo mujj bala ñuy egg ci kuy conférence mooy cheikh al muqaddam ali Diouf mu tarxib ay ganam welcome leen gërëm leen ndaxte ñëpp bàyyi nañ seen soxla yi ñëw oyisi oote bi nga xamantene nañ ko kon nañ ko jox may bi mu delo ñoo njukkal mu welcome len su ko defé ci ay kàddu yu gatt rek insha allah taala suñ paré ñu dem ci muhaadara bu mubasharatan bi iznillah rabbil alamin rahman rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim الشعري والشعباني محل النظم جملة الشعر te <coughs> di la ñaanal yàlla baat bi dee nak nag waaye nag ñu wax ko di ñaan yalla sëriñ bi ñu nga lay ñaanal yàlla yaay serak Cheikh bay abubakar al musanna Niass ñu lay nuyu tamit di nuyu bay sisi nuru din Niass ñu lay ziarah di nuyu seen rakk Cheikh Bachir Niass di nuyu si Mohamed Lamine ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñëpp ñu ngi laa nuyu te di waxee nag ci kàddu suñ kilifa di Barham juuf du suma kàddu waaye kàddu Barham mooy wax di gërëm ñi nga xam ne ñoo fi toog. rawatina xaritam imam Abdoulaye Ba di nuyu képp koo xam ne jigéen nga tamit nekk ci toog yi ñëpp ñu ngi leen a ziara rawatina suñu yaay yi ñu ngi nii toog yaa Seynabou yaa maam astu bi tey ñoom ñëpp a ngi nii toog yaa boy maa ngi leen a ziara kàddu yi maa wax nii du suma kàddu kàddu barxam la bañ a guddal barxam nee na mu ngi gërëm ñëpp mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rawatina mu ngi gërëm sëriñ nga xam ne moo nekk ci dëkk bi fii di bàyyi Cheikh Mouhamad Nasir ba xam ne na moom lay gërëm te di la ñaanal yaay mu ngi laa mu ngi laa gërëm te di la sant ci taxawaay bi nga xam ne moo ngeen taxawaay njabootu Baye Cheikh Diouf kontaan naa ci mu ne mu ci àll bi waaye gis na ne. bàyyiwul woon ca controverse ko lu em ci tere côté ay mu ne kon lay ñaan la te di la ñaanal wér ak panu gudd ak wér gu yaram di ñaan tamit nga yokk leen ñaan ñoom ñu nekk ci biti ñu leen sàkku lii la barxaw wax bon kàddu yooyu la la barxaam yëgee